mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare ci bërëb bu tedd bii nga xam ne kenn ci ñi nga xam ne ñoom la yàlla taw ñu bokk ak seexul xadiim ba noppi ànd ak moom nangul ko muy seex Ibrahima Faati mm. sëriñ bi wóolu woon ko bu baax a baax te sëriñ bi moom ku ne xam na ne digganteem ak maam Thierno loolu booy na ay nopp mm. fu waaye mën a nekk ci àddina xam nga digganteem ak maam Thierno kon bu ñu jubee bis bu tedd bii nga xam ne si moom lañ koy waajalal jëmm jii di sëriñ Gana Mesra yàlla def mu koy defal ay bis yoo xam ne da ciy sargal lenn ci mag ñi. Mhm. Euh, woo njabootuk Seex Abdul Karim Touré jaarale ko ci ndigal muy sëriñ Abo Touré. Mhm. kon loolu moo waral délégation bi. Mhm. kon njaboot gi ñëw nañ teew ci ndigalul Serigne Abo Touré mi nga xam ne mooy xalifab Seex Abdul Karim Touré ñu ngi leen di indil nuyoom bu baax a baax. ak rakkam di jëwrinam euh, sëriñ Omar Touré. nga hmm. xam ne si mooy rakkam sa ñoom ñaar ñoo fi nekk ci doomi Cheikh Abdoul Karim Touré yu góor yi ak sunu bàjjan soxna Awa euh, li ñuy leen di ñaanal rek mooy li ñuy faral di wax rek dañuy wax ne euh, xulafaawu raasidiin ñaar ñii day hmm. bokk nañ ci ñi nga xam ne yóbbu nañ lislaam fu kawee kawe mooy Aboubacar ak Omar hmm. yàlla def na ñaari tur yooyu ñoo des ci njabootu Cheikh Abdoul Karim Touré Aboubacar mooy xalifa bi Omar moo topp ci moom yàlla leen suñ borom defal maanaam yéene ji ñu am ci kër Cheikh Abdoul Karim Touré ñu àggale ko fa bu baax a baax amiin kon ñu ngi nuyoo baax di indi nuyoo sëriñ Abo ci sëñ mi nga xam ne moo moo ñu moo moo ñu ci jataay bi mm-hmm. euh, sàkku ko ci sëriñ Abo sëriñ Abo nangul ko ko bu baax a baax yebal ñu ñu teew fii ngir waxtaane Cheikh Abdoul Karim Touré mm-hmm. euh, li nga li nga laaj nag ci Cheikh Abdoul Karim Touré euh, buñ ko bëggee wax ndax nit moom boo koy waxtaanee loolu it baax na ci mooy ñu xam cosaanam. Mhm. xam fan la bàyyi ko. la bàyyi ndax loolu it lu am solo la. Mhm. ndax euh, baay ak yaay. Mhm. Euh, am na lu muy lu rëy rëy lu muy def ci ay doom. dëgg la te it dana dana dolli koo xam ne si yàlla def na def nar na laa defal ndimbal. boo amee baay ju baax am yaay ju baax loolu mën na laa dolli. min jeexitil ansaabi ummin wa abin fa fii himaaj taxit maxatta addu bi maanaam bu fekkente ne rek yàlla def na nga ngay ku farlu ak sa sa ndey yu baax yooyu loolu yee mën na laa yóbbu fu fu sore sore sori mm-hmm. kon Cheikh Abdoul Karim Touré bu ñu la bëggee wax fu mu gënee àddina ak ñu ko meññ mm-hmm. moom mi ngi gënee àddina ci dëkk bu ñuy wax Màkka Touré Màkka Touré Màkka Touré nag euh, dëkk la bu bu cosaanu mm-hmm. xam ne si euh, réew mi réew mi xam nañ ko mooy ñi nga xam ne niti daara lañ démb xamoon li xewoon démb ndax xam nga dama koy faral di wax ñi xam li xew mais am na nit ñoo xam ne si boo leen gisee da xam ne ñii xam nañ li xew waaye ñi xam li xew xam nañ askani dëkk réew mi xam Màkka Touré ñooy ñan. Màkka mhm. Touré euh, sanc ba la ko waral. Mhm. mooy la waral sanc kokki mhm. ndax euh, muttu fa lambaan mi nga xam ne si moom mooy xadd naanu mën nañoo wax ne mooy xadd naanum waa Màkka Touré. ndax ni sëñ Fallu doon waxee ne maam maaram mooy suñu. mooy suñu xadd naanu ñuy lim ba agsi ci muttu fa lambaan it Màkka ture man nañ faa taxaw ndax day ku bari ay jaloore. bëri ñoo xam ne si ci réew mi ñoo xam ne si moo leen moo ñoom moo leen moo leen moo moo leen meññ. mooy muy muttu fa lambaan moom. nag la yàlla defaloon mu bokkandoog maam Maaram Mbàkke daara mhm. ak Maxtaar Ndumbe Jóob maam Maxtaar Ndumbe dem jàngi xam-xamu naxwu lu arabiya dikk woowaat ñi nga xam ne ñoom la bokkaloon daara di leen ko jàngal mhm. ba mu leen ko jàngalee ba noppi nag da leen digal na nañ sanc ku dem ci liste bi nga xam moom lañ defal def def ko ñi nga xam ne ñoom la maam maxtaar ndumbe jàngal boo demee da nga ca fekk mutt fa làmbaan moomu mhm. ci loola nag loola lañ sanc màkk Touré muy diine ak ragal yàlla ak bay dunde seenu ñaq mhm. loolu yi lañ lañ ko sance mhm. te loola te lañu wëlërante mhm. ba nga xam na si maam maharam euh, doomam jël na doomi mutt fa làmbaan muy muy ngay ngayo maram xàcc muy muy muy muy law bi maram xàcc law bi maram xàcc moom moo moo moo jógee ci doo di doomi mutt fa làmbaan dem kër ahmadu soxna buso di doomi maam maaram am ca xab sa mbàkke xab sa mbàkke mooy wajuru maam faati isa mii muy wajuru maam cerno xam nga kon mën ngaa wax ne màkk ture cerno màkk-màkk piir la bu ñuy wax màkk-màkk yi nga xam ne si dañ leen dañ dañuy lim màkk-màkk mënees na cee boole maam cerno faati ndax boo demee ci sëriñ Moussa Ka bind na ko mbind mu leer mhm. ndax mi ngi naan nakaxa ay dan dañuy mhm. lim soxna yi nga xam ne si ñoom la ahmadu soxna buso dencoon ba mu agsee ci Xabsa Mbàkke dafa wax ne moom mooy ñeenteelu ahmadu soxna buso mhm. mooy am na fa doom ji ñuy wax ah, sa am na fa doom ji ñuy wax xab sa Mbàkke am na ca doom ji ñu Xabsa Mbàkke moo jur Faati Isa uh-huh. waaw am na ca doom ji ñu uh, mu jur Faati Isa maam Faati Isa jur maam Ceerno uh-huh. nakaxa aydan baxdaha lawbe ture uh-huh. raabihatan xaryatuha makka ture wala da minha baxda bintan waaxida waxiya xabsatu tanaalul faida waxiya waalidatu xaaisatu jóob ummun li ibrahima lixfir kullahu kon ñeenteelu Ahmadou Soxna Bousso uh-huh. Lawbe Touré la tudd ma nga bàyyi koo màkk Touré uh-huh. ba mu ñëwee am na doom ju ñuy wax Xabsa Mbàkke sa Mbàkke jur Faati Faati Isa Faati Isa jur maam Cerno uh-huh. kon maam Cerno noonu la demee ci askanu màkk Touré yi sëriñ Abo mii nga xam mooy xalifa bi moom mooy xeetu maam Cerno ci wàllum askan kon loolu relation bu mag a kon suñ gànn bu defee loolu def na lu rëy rëy waaye bu ma yaa euh, gaawantoo rek ñëw ci seex Abdoul Karim Touré moom euh, ku ñuy wax Mouhamadou Mokhtar Touré mooy waajuram uh-huh. Mouhamadou Mokhtar Touré uh-huh. sëriñ Moutoufa Mbombe mooy waajuram uh-huh. te sëriñ Moutoufa Mbombe am na lu ci sëriñ bi waxoon Moutoufa Mbombe day ko bëri ay xar baax ku siiw ci ak wilaaya ku baax ku daan jàngale alquran ak diine ba siiw ci lool lool lool ci réew mi euh, moom sëriñ Touba wax na ne xut bu samaan gi jaar na ci moom moom Moutoufa Mbombe sëriñ bi nee na xut bu samaan gi jaar na ci moom te sëriñ bi nee na am na fukki doom ak ñeent moom muti fa mbombe nee na ñëpp ay waliw la ay ba mu des kenn am na ñu ne ba mu des ñaar te nee na kooku sëñee fu ko xam la ca ndax ci saalihiin yi la bokk uh-huh. saalihiin moom dafa doon martaba bu kawe kawe kawe kon sëñ muti fa mbombe kilifa gu gu màgg a màgg màgg la am na bi sax ma ci ma ci ma ci waxtaan wenn waxtaan di di wax digganteem ak uh, Cheikh Ibrahima Fall uh-huh. xam nga jaar na fa ñëwoon na fa ba wax nañ ne sëñ sàmbay sax nettali na ko ci kaset ne Cheikh Ibra nekkoon na am na fa ñetti at wax nañ ne mutt fa mbombe daana fa naaf euh, maam Cheikh Ibrahima Fall mutt fa daanaka fa naafilaloo kaamin bi ñaari rakkaat nga xam ne foofu yi Cheikh Ibra jaar na fa ba muy dem mu ñaanal ko ñaan gu nangu daf ne ko foo jëm de yàlla na fa yiwu yàlla jëm mhm. ba mu jénnee la gis sañ tubaa te sëñ tubaa mooy yiwu yàlla mhm. kon kooku da loolu rek dafa doy ijaaba dañoo dafa mën a doy ñu tegtale nag ñaanu mut fa loolu moom du deltu ginnaaw Seex Ibra gis na sëñ tubaa te ba mu ko gisee yaakaar naa ko en ku ne xam ne gis na sëñ tubaa mhm. te loola nag lu am solo la mas naa koy nettali nag am koo xam ne si ba mu ko déggee ci ëllëg sa laa dégg moo tax waxtaan yi baax di leeral ëllëg sa laa dégg mu mu waxaawaat ko neneen daana mut fa dakaa ñaanal ñaani gépp yi muti fa du ñaanal kenn ñaanu jëpp nit nitu yàlla la day xam muti fa mooy kan kan la ko sëñ tubaa sëñ tubaa sëñ tubaa lan la sëñ tubaa wax mooy doomam yooyu yëpp wàlliw lañ uh-huh. seede ci moom xut bu samaan ba mu fa ñëwee ba mu gërëm ko dana ko foo jëm yàlla na fa yiw yàlla jëm uh-huh. loolu kon nañ ko waxee noonu rek te bañ kaa waxee naneen lu dul loolu waa kon muti fa moomu nag moo jur Mouhamadul Muxtaar Mouhamadul Muxtaar mooy waajur Cheikh Abdoul Karim Mouhamadul Muxtaar nag mooy taaw muti fa mboomi kon foofu mooy cosaanam ci wàllu baayam uh-huh. boo ci wàllu yaayam fu lu am solo la moom it ndax moom ku ñuy wax soxna sa soxna Maram ture moo ko jur mhm. soxna Maram Touré Habsa Ndiaye mooy waajuram mhm. Habsa Ndiaye Aminta Jëbu Mbàkke Aminta Jëbu Mbàkke nag doomi maam Maaram Mbàkke doomi sayer soxna bu sa sayer soxna bu sa di doomi maam Maaram mhm. kon moom boo xoolee ci euh, càlla la moo ko sëriñ bi seen ñaari maam ñoo bokk ndey ak baay muy Ahmadou soxna bu sa ak sayer soxna bu te li gën a am solo mooy fi mu fi mu càllaloo noonu Mhm. silsila googu boo ko toppee ci sëriñ bi mooy dem ba ci sayidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sëñ Abdou Karim silsilaam googu boo ko toppee mooy dem ba ci sayidna Muhammad sëñ mu Ka wax na mhm. ko Mariam ummu ahmadul mbakkiyu doomi sëriñ bu soobe may waliyu wahiya bintu ahmadul bu soobe xaadi xudaati saahibul xurubi mhm. muhammad ibnu ahmad ibnu ahmad nag li xaal yi mun tamit li xammaat xammaat xaali bu sa moomu mooy seen maam mooy maami Sëñ Abdou Karim moom mooy maami euh, sa maam sa Seexul Xadim mhm. nga xam ne foofu mooy relation bi njëkk am ci Mbàkke ak Buso bi foofu la bàyyi ko dëgg la ndax da nga dafa amoon ku ñuy wax euh, maanaam xammaat xaali bu sa mhm. da doon wër doomam ju tudd rakkam ju tudd Buukar xaali bu sa dafa mhm. réeroon mu koy wër ba dem dëkk bu ñuy wax Xuube mu dem fa ca pénc ma ànd ak ay doomam ak i dongaam ak i téereem muy taw far yàlla def ba muy taw taw bi wër wër ko fi mu toog dara tooyut ci moom uh-huh. nit nit ñi dem nettali ko buur bi buur bu dëkk bi wax ko ko ne ah ki fi fanaan de nit ku baax la ndax gis nañ ne taw na waaye taw bi li muy bëri bëri bëri gisuñu kenn ko euh, benn fepp laal ko buur bi woolu ko boole kaak sëñ bu ñu wax sëñ xube siise sëñ xube siise may ko doomam ji ñu wax maam xujja siise foofu la relation waa Mbàkke ak Mbusoobe bi njëkk am boo demee sëñ Musaa Ka mi ngi koy leeral Mbàkke ak xubee lañ xamante seen maam yu baax ya foofa lañ dencante la ko waral seen maam ja maat Ali moo dem di laaj rakkam ja Buukar Ali muy taw ci guddi mu taxaw di jàng di wër yëre yére ak téere yaag ngay jàng muy taw ci guddi mu taxaw di jàng di wër yére yaag téere yaag ngay jàng ba bët setee ñu fekk dara am tooyul ñu xam ne kii am na karaama sooyul sëriñ xubee ko téye may ko doomam maam xujja siise kenn gisul moroom maam Khoudia Cissé moom nag lañ jox sëñ sañ ah, moom lañ jox ah moom lañ jox Hamad Ali Bousso mm-hmm. mu am ci soxna bu sa ak sëriñ ma tabar bu soxna bu sa jur ahmadou soxna bu sa ak sayar sayar moo meññ Cheikh Abdoul Karim Touré ahmadou moo meññ maa astawaalo mhm. nga dem ci ma tabara mañ bokk ma soxna bu sa bokkal ndey ak baay mhm. mooy waajuru sëriñ ma bu sa muy waajuru sëriñ bu soo bi ak soxna jaar sëriñ Abdoul Karim mbokkum Sénégal la mbokkum réew mi la dëgg la foofu la juddoo ci ci atum 1871 mhm. ci Màkk Touré wala gënee àddina euh, bi mu gënee àddina nag ba toll ci wàllum njàng Euh, dafa baayam bu bokk ak baayam lépp ndey ak baay. Mhm. moo ko dalal alxuraan jàngal ko ko ba mu mokkal ko. ba mu noppee ci njàng mi nag la daa dem ci Serigne Touba moom daa noppi rek daa di laxas dem ci Serigne. laxas dem Serigne xam nga xam ci la laxas dem ci Serigne bi ndax makka mhm. ñu ñu yàgg ak sëriñ bi lañ. sëriñ bi dafa daan jóge pataar di dox di dem di seet sëñ mut fa mbombe moom la moom ma la doon wax léegi borom wilaya gu mag googu ma la doon wax léegi sëriñ bi daana jóge pataar di ànd ak Mamour Anta Sali ñu koy seeti eh, Màkka Touré ndax Màkka Touré ak pataar ab dox la di gàtt la boo xam ne si ñoom relation yi foofu lañ ci amee woon ba soxna si ñaareelu soxna boo xam ne man nañ kaa waxee noonu ngir mu leer bu sëriñ bi jël màkk ture la ko jëlee doomi mut fa mbombe la muy soxna Penda Touré mooy waj mooy wajur Mouhamadul Kabir mi nga xam ne si am na ñu ne mooy taawub sëriñ bi ak soxna ummi mbàkke mi sëriñ Moussa ko doon wax naan sa na sëriñ sëriñ Moussa ko doon wax naan moom lañ jox euh, sëriñ ma yaasin ummi jëng uh-huh. muy sëriñ soxna ummi mbàkke moom euh, nga xam ne sëñ bi coroog ba mu koy jox sëñ ma yaasin ummi jëng dana ko sa sa sa doom ji bul ko yemaleeg ñiy baasin uh-huh. jàng na jàngal naa ko dootul jeng te set na sang naa ko mat na sang muy soxna ummi uh-huh. soxna ummi moomu nag ndeyam doomi mutt fa mbombe la di doomi bi bàjjeni Cheikh Abdoul Karim Touré mhm. bi mu gënee àdduna foofu ci atum 1871 ba mataw di dal jàng nag dafa daal di dem nag euh, seet sëriñ bi mhm. bi sëriñ bi mi ngi ko fekk Mbàkke Baari mhm. bi mu ñëwee Mbàkke ca jamono yooya sëriñ bi mi ngi woon ci waajtaayu tukki bi mi ngi woon ci waajtaayu tukki bi léegi bi dénk ko maam Thierno. maam Thierno loolu xam nga yoon yëpp maam lañ ko dénk bi sëriñ biy dem. dëgg la ndax Cheikh Modou Fadel nettali na ko dañoo dénk sëñ Baye Thierno. comme moom lool lool lool loolu la wax waaye yoon wéppin nag ndax lu baree bari ci ci lijjantib sëriñ bi ci ginnaaw ci loxo maam Thierno la nekkoon. Mhm. maam Thierno moo tax ak moom. ba diggante bi nga xam ne si sëriñ Abdul Karim dafa delluwaat ci lenn ci loxoy bokkam ay bokkam ba sëriñ bi nag jóge ci géej gi ñëw sànnoo si di gis fere yi sa gisu ko. mu laajte mhm. ko nag daane ana Abdul Karim ñu daan ne ko ah, moom kat dafa dellu woon ca bokk ya. Mhm. mu daal di koy woolu mu daan nañ ko ko nañ ko woo mu ñëw te mu ànd ak. Euh, euh, mbokkam yooyu lenn ci ñëw bañ ñëwee sëriñ bi daan ne ko euh, foo nekkoon mu xaar ko fa mu dekkoon rek yëpp loolu yépp xam nañ ko. Mm-hmm. mu daan ne ko mu daan ne ko ah man de sëñ borom xamal na ma ne kenn sañutulaa liggéeyloo ku dul man. Uh-huh. kenn sañutulaa liggéeyloo ku man ci la Seex Abdul Karim Touré daal di jaayante foofu ca sànnoo si dañu di jaayanteek moom ba ni ko sëriñ bi wàccee sànnoo si googu la tàmbalee liggéey ab liggéeyam bind na ko sax nga xam ne laa sam toxoo si nii na. Uh-huh. xaadiman lahu Uh-huh. doonal mira lii kaane iskuntu lahu uh-huh. fa kay fala man kaane lillahi karim kaana lahu mahal ujuri laa yarim kon man sëñ tubaa taqoo na maak moom ay at ay at laa taqoog moom uh-huh. at yi ma taqoog moom yëpp nag dama ko doon liggéeyal mooy jëf wax jam waxoon ne bu suñ tubaa dellusi woon du ma xam lu ma koy defalaat ndax lu ma ko waroon a defal lépp defal naa def naa ko ba sëñ tubaa woo ko nekk santal yàlla mu ne alhamdulilahi mm-hmm. rabbil alamin mu waxaat ko ko mu ne alhamdulilahi rabbil alamin mu waxaat ko ko mu ne alhamdulilah mu ne ko sa jëf yëpp suñ borom na ko ca xam ne sa jëf yëpp suñ borom nangu na ko mm-hmm. te sëñ Abdou Karim masaan wax loolu danaan yenn jëf yi yàlla nangu rek daa doy mm-hmm. waaye moo ma wax ne ma sa jëf yëpp suñ borom suñ borom nangu na ko te waaye nag dana dëpp ak lu mu bindoon ñaan ko suñ borom moom si Abdou Karim barik li allahuma ahmala jumlataha wa baarikan fii xiyaali tilka uxraaya sama lépp na nga ko barkeel loola nag mooy mooy ci barkeel léppam googu ca la nangu jëfam gépp dugg wallaahi nañ jëfam jëpp jëpp jëpp jëpp te bi bi bi sëriñ bi mu jébbaloo noonu ba sëñ bi nekk Mbàkke nekk di dem gànnaar loolu lépp àndal na mu dem na gànnaar fekk sëriñ bi waaye lu jiitu gànnaar geet daaru marnaan nekkoon na fa sëriñ bi tarbiya gu mettee metti goo xam ne si wax na ne bu daan liggéeyal sëriñ bi daana àgg ci Euh, maanaam ëllëg yi ñuy yor day àgg di collé wu ci loxo bi ba nga xam ne boo koy dindi day tàqale ko deru loxo. nee na loolu jaar na ci liggéeyal ko Serigne ba mm-hmm. ñu nekkee gànnaar yi nee na àggoon nañ ci xiif boo xam ne dañ daan tocc toccal euh, ay ban di ko di di ci def ndox di ko mos ngir ñu koy dëgërloo. Mm-hmm. nga xam ne xeetu tërbiye gu gune jaar nañ ca. ndax wax na ne sax nee na marta ba bañ jëlee gànnaar loola rek dafa doy sëkk ndax wax nañ ne sëñ Abdou Karim nee na am na ca jamono yooyu ndaw loo xam ne dafa ñëwoon. am fa juróom-ñaari fan daal di génn àddina fekk booba sëñ baa ngi ci fatu bi mu génnee dana leen ah dañoo wax ne dafa am ku wàññi ko ci ci waa daara ji ñu ne ko waaw mu daan ne euh, dem leen denc ko te ngeen ñëw waa ma wax leen bañ ko dencee ba ñëw mu ne leen euh, bàmmeeli wàllu yi nga xam ne si ñoo tëdd fii ci gànnaar ñoo ma wax ne ma sa taalibe boobu ñëw fii am fi juróom-ñaari fan di di la wu jox ñu ko ñu barkeeloo ko moo tax mu mu tëdd foofu daan ñu ñëw cële cëyeen jolof lé nekkaat fa ba seen liggéey mat uh-huh. ñu dikk jaar yi nekkaat fa ba seen seenub liggéey mat ñooñu kon nuñ men kon loolu xamoo ba xam seen seenub dayo fan wallaahi wallaahi moo tax sëñ bi waxoon na leen ne leen uh-huh. noppi ngeen a yàqu nee na sëñ Tuubaa waxoon na leen ne leen noppi ngeen a yàqu ndax yéen a ngi mel ne waxee ne woowu ngeen xam ne dañoo dindi la ca biir def ca def dindi la ca biir ba mu set tëjaat ko daan leen ndaxam sànni ko ci digg géej ga daan leen ndaxam moos dana tëmb waaye du diig fu leen neex ci réew mi def uh-huh. leen noppi ngeen a yàqu ñooñu ñooy ñooy ñi nga xam ne si ñooy ñooy magi Seex Abdul Seexul Xadiim yi Seex Abdul Karim Touré bokk ca yàlla defaloon ko muy muy muy ku bëri lu mu xam bëri woon lu lu lu mu bind bari xam-xam ndax boo ñëwee ci wàllum njàngam xam-xam it mënuñu laa wax ne diw diw ko jàngal nee bi mu ñëwee ci daara ci dafa tëdd ba guddi gént sëñ tubaa bi mu bi mu bi mu gisee sëñ tubaa sëñ bii di ko jàngal ayatu kursi yi di ko firil ci loolu la dem bi muy yeewoo lépp loo xam ne si gis na ko rek da koy xam amatul lenn lu ko um lépp lu mu gis da koy xam kon kooku mooy Cheikh du Karim kon ku la laaj ne koo ko jàngal neel sëñ Tubaa ko ko jàngal sëñ Tubaa jàngal nit ci ñetti fan sëñ Modou Fall alxuraan yaakaar naa loolu ñu bëree bëri bëri xam nañ ko dégg nañ ko ci alxuraan ñetti fan la ko jàngal kon bu sayee sëñ Abdou Karim ayatul kursi yi boo xam mokkaloon na ko bu yàgg mu yeewu lim gisati mu xam ko loola day bokk ci xarbaaxi seexul xarbaaxi seexul waaye nag Cheikh Abdou Karim ku gëm sëñ Tubaa la woon te bëggoon ko boo demee sëñ Moussa Ka ba mu koy tudd dane soxna Xabsa Ndiaye dem ndaam barkee taxoon soxna Xabsa Ndiaye dem ndaam Abdul Karim Touré sëtam moo gëm ndaam uh-huh. kon gëm googu mu gëmal sëñ Tuubaa àggoon na ci nee bu sañoon nit koo gis ci kaw suuf sëñ Tuubaa lay tudd <laughs> allahu akbar waaw loolu wax nee na bu uh-huh. jëm mu joo gis ci kaw suuf muy dox rek boo nekkaa noo tudd danaan la Ahmadou Bamba Ahmadou Bamba ndax loolu la ko waral dafa amoon taalibeem bu ñuy wax sëñ Cheikh Ndiaye uh-huh. ba mu amee doom ju góor di taawam dafa mébét moom sama doom ju sama taaw Cheikh Abdul Karim Touré laa bëgg Mhm. waaye Cheikh Abdou Karim Touré moo war a tudd doom ji sa sëñ Tuubaa la muy bet moom la koy tuddee léegi nag sëñ Cheikh Ndiaye moom xam mu ko xamoon moo tax mu dikk ci lenn ci njabootam ñi ko jege mhm. naka maa gën a xam sëñ bi koo ko jox doom joo ko jox ne ko tuddal ma ko sëñ Tuubaa la koy tudd du ko tudde boppam te mhm. sama taaw moom laa bëgg mu tudd ko ba mu ko waxee koo ko ñëw day ko sëñ mu daal ne ko Cheikh Ndiaye ak maa xam ak xam sëñ Tuubaa bu ma sañoon képp ku ma gis ci kaw suuf ngay dox buñ naa noonu tudd da nga ne Ahmadou Bamba laa tudd daan ne moom laa ko naroon tudd waaye lim ma ko ñaan la kon dinaa ko ab taawam mu tudde ko Abdoul Karim mooy Abdoul Karim Diouf moom kon Cheikh Abdoul Karim dafa nekk bëgg sëñ Tuubaa ba nga xam doyloo ko ba tey doyloo ko ba tey amoon na ndongaloo ndongaam lu faatu woon mm-hmm. loo xam ne si luñ mën a jëriñoo la ci yoon wi ndax man bu may wax damay bëgg loo xam ne si yoon yi dañ koy mën a jëriñoo ndax bëggumaa wax loo xam ne si xëy na dañ koy wax ñiire waaye bu ma soñoon donte benn baat lañ feex wala ñaari baat lañ feex yoon yi jëriñoo ko di ko jëfe ndax mu jëriñ leen mm-hmm. dafa am ndong bu faatu woon ku nekk euh, njàmbur mm-hmm. ku ñuy wax sëriñ Buubaka ba mu faatoo ca njàmbur sëriñ Abdou Karim dafa dugg ca biir bàmmeel ba bind ci turu sëñ tubaa ca bàmmeel ba nga bàmmeel yi ñu ngi ciy bind ay yu ne waaye sëñ tubaa gën a gaaw nag looloo ñu ngi koy may murid yëpp nañ koy def. Serigne Touba di bind ci biir bàmmeel bi turu Serigne Touba moom la bind ba mu fees turu Serigne ci biir bàmmeel bi. ba mu noppee ba denc ko ba dem njaareem jox la ko Serigne bi Serigne bi daf kaa naka dangaa am ndongo lu faatu. mu naan ne ko waaw Mbacke mu naan ne ko noo def ak moom. nee mu ne ah damaa dugg ci biir pax ma de bind ci sa tuur yi ba mu fees teel. ca Serigne Touba ne looloo ma ko yëgal. laa ilaaha illallah moo yëgal. kon loolu lu am solo la mën a jariñoo la ndax tur yu ne lañ ciy bind loola lu baax la waaye Cheikh Ahmadou Bamba dal na xel lool ci biir bàmmeel te loola jàngal na ko murid yi sa sëñ Tuubaa nee na ko looloo ma ko yëgal kon loolu xam nañ ne ku ko fa def sëñ Tuubaa yëg ko sëñ eh, teg foofu sa loxo ñu ñëwaat